哥。 فاطمة بخمة يوتيوب البخبوزو جلاي سبخمني الدنيا jërëjëf eh, jaajëf Aliou Ba jërë ngeen jëf eh, internet yeeg auditeurs yi Yacine Pouy jërë ngeen jëf Mame Ndiaye yéen eh, ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel ci RFM yëpp ñu ngi leen di bu baax ñëwaat seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg euh, sunu waa ji euh, mu Mohamed Ndiaye nga xam ni fan yëpp daf ñoo manqué woon waxoon naa la am na fu ma ko yónni waa noppee rek dina dina ñu fekk si waat ci li nga xam ne la ñu nekk Ndiaye Babacar euh, maa ngi lay siyaar bu baax maa ngi delloo siyaar bu baax enveloppe bi dafa manqué ñaari junni li gën a gaaw ci yàqal gone de mooy yónni ma gaaw ma ne enveloppe bi dafa manqué ñaari junni bu fekkoon sax yónni gi ma la yónni rek yem ci la mais dama laa jiñ sàcc garaaw amul problème loo def noonu la baa yaa ci jàmm. maa ngi sant bu baax a baax ah, alhamdulilah may namoon naa bu baax baax a baax namu waa Sénégal ci xalaas maa ngi nuyu également passe partout baa yéen ci jàmm. ñu ngi sant bu baax di góorgóorlu. Ndiaye. waaw daa am kilifa gu mag bu nekk ci ci réew mi day def ay ay ñaan quoi. Mm-hmm. am benn waaye bu ñëw ci moom bu tudd Modou Ndiaye. wala kii Baye Niass mii foto ci kër gi nee na ma Sadio dafa oyof ba biir. bambaali gi mu dëkk ci néegu yaayam lay fanaan xam nga tamit ñii li wóoru leen tamit nga bàyyi ñes li muy wax nii wóor ko mosoo fekkee Sadio fu mu yeewoo euh, ba nga naan bàyyi euh, Sadio dafa oyof ba fa mu dëkk sax néegu yaayam lay fanaan. lu mu la ci wax takku téere nag. moo leen di photo waaw ma daal Sadio mos na ko yow. Ndiaye mu dugg sama néeg rus. Hmm. dama toog ak sama frère yi. ma jox booy ñu dem wuti attaaya di ñëw di teg ku koy attaaya yooyu booy ne ma non kii ku nekk am looy def booy bëgg ma teg loo attaaya bi ma mer. leneen du ma seet morom bi teg ataaya bi njaay ci ngoon gi ma gis Sadio teg <coughs> ataaya bi. tegale ay tànk <coughs> xam ne man dama daara yor ma wéru ma samay doy ma beew <laughs> nañ jëm ci Modou Ndiaye. <laughs> dégg nga Ndiaye. Uh-huh. abaa Modou Ndiaye dem ci kilifa gi mu koy ñaanal bon mu waxaale ko. profession mag yooyu noonu moom maçon la day liggéey ci maçon yooyu. mooy Modou Ndiaye. waaw mhm. ak ah, xam nga comme li ngeen di wax fii rek yenn saa yi nit ki fekk la ci sa ci sa ngëm-ngëm wala ci sa pas-pas mu jaar la fa. Mhm. nga nekk taalibe Cheikh wala nga nekk murit wala nga nekk laay mu jaar la ci loolu. Mhm. Modou Ndiaye fa la jaar sëñ bi yow. sëñ bi Modou mooy ñaanalaate. déedéet sëñ bi waaw. léegi ku ko jaar foofu. Modou Ndiaye. Modou Ndiaye ko nax. waaw moo nax sëñ bi. waaw kii ñaanalante la ñu waaw mais nag ci ci ay ci liggéey ko en fait. ok tabax kër. mu jël këram jox ko pour mu liggéeyal ko jox ko ci lu toll ak 6 millions ñaari kër benn Thiès benn Touba boole ko ak ay nit ay borom kenkaayeri Modou njaay boole loolu yëpp ne fes xaalis ba may la def te egglawul tabax ya yóbbu na xaalis ya lab na ñam ko boole loon encaissé na ñenn ñi avance dem na yoonam fay ay téléphone am déglu déglu ñoo ngi leen di laay biire ak laaral gun leen di laaral ci jëmm ji nga xam ni moo tudd Modou Ndiaye ñu koy wooyee Baye Modou Ndiaye Hisnul Abrar di leen laaral aw doxin woo xam ne da koy doxee ak méngoowut ak ni ab talibe war na jëfalante ak ay mbokki talibeem ñu koy ñaawlu lool nag laaral gi nag doonul ci suñ biir ñun ñi nga xam ne ñun la ko jëfalanteel waaye daa doon loo xam ni dañ leen koy laay biire ngir ku mu yegg si caw ko te xam ni moom yi noonu yi lay doxee ndax jubul ba ci jiitu mooy dafa kilifa goo xam ni Modou Ndiaye mii daa ñëwoon ci moom di ñaanlu si ngir wàllu tëju ak wàllum umte ba mu ñëwee ba mu ñaanal ko ba noppi mu yëkkati kilifa googu yëkkati fukki ngir yéen ma ko am ca la ko leeralee yoo xam ni lu topp ci 6 millions nga xam daan ko jox dara ba a daanaka fay na ko ca bâtiment bi tamit daanaka daanaka presque daanaka neuf millions wala huit millions. korite gii bi mu jubsee gii jàll dafa am benn am fer bu ñu jël yàpp ko ci saret yóbbu ko ci marché di ko jaay gardien kër gi gis ko foto ko yónnee ko kilifa googu yi tamit bañ ko woowee ko muy lay boobaak léegi ca la déclaré ab feebar

demee daanaka jox na ko xaalis bépp ak di ko laajaat ci yeneen yu ñàkk fayda yi mu jox ngir wóolu gi ko wóolu ba demee ba nga xamante si ni kuule rek a ci des dem nañ ba teg biri gi boobaak léegi liggéeyaat kilifa googu ko boole woon moom yi tamit bi muy ñëw di si boole woon ko kenkaay boo xam ne dafa ren jëlee bagage leboon na koo kii lu tolloog daanaka quatre cent ba léegi fay kilifa gi nga xamne mo la seqoon ci walu ñaan bi amna xaritam bo xamne ñom ñaar ñoo andu suba ngor guddeeg bi àbb na ko fi 200 cent xam dana ko bokk ko gi yegi tamit lool lepp mu doon ay xeeti njum yoo yo xamne lo xamne baaxul ci société bi te luy delo gënal société bi te mom mi da koy doxal te lenn lu mu ci def rek bu ci paré da koy won ginaaw te it da lay gëmloo ni leen ay bokki taalibe leen nu leen di lay biiré di leen leeral ni jëm ji fu ngeen ko gis xam leen ni ki moy Modou Ndiaye Hizbut Abraham te bu tok ak yow rek bu wax ak yow rek sa yaram limuy muy def moy daw te dang ko gëm dang ko bëgg ci la may wax wax ngir wax ci te di tamit dara wax jooju dara doonu ci dëgg kon na ngeen ko bàyyi xel te xam ne Maodo Ndiaye Xisnu Abraar mi def na lii te lii daa doon li feeñ waaye leneen lim def te mënuñu koo wax sax daanaka kenn xamul lu mu toll. yaa dégg yi nee na waaw daa am yi nekkoon fii di liggéey fii Dakar dem dikk. Mhm. am fi contrat yu wóor. Mhm. xëy dajeeg benn waay mu ne leen dañu yóbbu Arabie Saoudite wutal leen contrat liggéey bu gën a baax bi ñu nekkee nii ñu bàyyi ko fa dem. def nañ fa un an et quelque bëgg ñibbisi mun ñoo ñibbisi lañ leen waxoon dara amu ca. donc ñu doon liggéey dakaa dem dikk. waaw ñoo dem Arabie Saoudite mënatuñoo dikk. waaw d' di ñaan ku leen dimbali. <laughs> d' accord amul problème <laughs> di ñaan ku leen dimbali. Mhm. pour ñu ñibbisi sonn nañ fa ka leen fa yóbbu gisatuñ ko nax na leen ci ay faux contrat. France te ñu yegsiwaatee fii est-ce que dinañu amaat seen liggéey bi ñu amoon. ba ba waaj a jëlaat leen ñu xool. bu hmm. boobaa du doon moom moom ak. moom ak ñun ak ñoom lay doon ñun ak ñun ak population bi lay doon. <laughs> ñu déglu leen. day ca. man moom chauffeur Dakar dem dikk laa xaadim bii laa tudd maa ngi samay pièces benn jógeegu ci sama basi Dakar dem dikk samay kayit yëpp mi ngi ak man ma nekk Sénégal wax dëgg yàlla am di am ay deux cent cinquante mille trois cent mille weer ñu dajeeg benn Sénégalais Alaaji Caam mën nañu Arabie Saoudite dañoo soxlay chauffeur contrat pour deux ans expliqué ñu nañu laaj ñu suñu salaire yeeg yëpp ñu waxtaan ak moom mën nañu ah yéen booy amul leen salaire fii lu mu dee dee dee weer bu ngeen frais li ngeen di frais ba pare maximum da ngeen denc cinq cent mille yu dañ frais ah, le moom boo ko defee deux cent boo ñëwee da nga jàpp si fi bopp wax ñu loolu man maa liggéey Dakar dem dikk Ibrahima Ndaw sama xarit bi moom tamit la même chose total la nekkoon di liggéey man Mansour nekk station sel liggéey ñun ñëpp ay chauffeur la ñu woon ñaar ñi chauffeur citerne man chauffeur Dakar dem dikk Demba ancien militaire la si sànq sinwaa la nekkoon di liggéey léegi bi loolu jàllee ñu indi ñu Arabie Saoudi toog nañ trois mois yoo xamante ne fay ko ñu rax si dolli société bi ñu fi indi nee na bii avion bi ñu bi ñu jëlee Sénégal ñu ñëw dañu koy dagg loolu nekk beneen problème ñu pare ñu jox ñu ay oto yu màggat yoo xamante ne chaque jour yaa ngi daw dépendre chaque jour yaa ngi daw dépendre léegi nag biñ demee ba xam ne lii arrangé nañu ñu dem ci suñu ambassade expliqué ko problème yi xam nañu ko amul consulaire mënut taxaw si dossier ñu def kut ko kut fatawul lijjanti carte consulaire yi depuis septembre deux mille vingt et ba léegi ñu ñuy dawloo tey suba ambassade di ñu yebal ci naar bi naar bi naan ñu seen a ci des ba nii may wax ak ñoo ngi toog xamuñ ci lan lañ toog dem nañ ci ambassade ba sonn nañ ci ambassade ba sonn mënuñu am pexe ba tey mënuñu am pexe lim ñuy wax. ambassade lañ ñuy wax mooy dinaa yebal ndaw mustu déplacé wu ñëw demal si suñ problème lu gën a nekkati problème réew moo xam ne angale arab moo fi nekk nga indi fi ambassade yi koo xamante ne arab mënu koo wax ak ñun suñ problème kan moo ci war a taxaw pour ñu dellu suñu réew ñun sàcc ñu fenn ñu réew ñu ne dañoo indi woon ci contrat bu arrangé wu gis ñoo xam ñu bëgg ñibbi ñu ne ñu du yombe noonu il faut ngeen fay bor bor yoo xam ne njëriñu ko xamuñu yan bor lay béy avion yi ak liñ financé ci yéen ngeen te ñoom ñoo ñu soxla ñu ñëw man joxuñu ma man sama bopp dane ma contrat bi da koo fàtte ci këram loolu la ma wax mais sama gén ñu génnee daat la contrat nga signé ko ba gis gisuma contrat sama yeneen collègue yi ñoom fo yi leen joxoon Sénégal pour ñu indi contrat yooyu ba ñëwee dañ koo cancel maanaam dañu leen yi baaxul pour ñëw la rek baaxul salaire bi ñu waxoon ñoom ba ñëwee mille quatre cent waxoon ba ñëwee dañ ko wàññi mille deux cent lañ leen wax génne deux cent yi contrat yooyu ñoom it ba tey signé wuñ bi ñu waree ñëw lañ ñu doon wutloo Sénégal ay bono via mars ak yooyu yëpp wut nañ ko ba ñëwee ba fii déposé nañ yëpp c'est la première fois ñuy tukki ci ay contrat am na lu bari loo xamante ne xamuñu mais biñ amee problème ba ñëw ci ambassade bi ci la ñu door a yii yëpp ñu ne ko ñun xamee wuñ ko noonu ndax lii expliqué wuñ ko Sénégal ñuy fi jiitu tamit expliqué wuñ ñu dara loo xamante ne xam nañ mais comme ñun jàpp nañ fi yaa fi suñ day yaa fi suñ baay yaa fi suñ président lépp suñu amee problème fii lañ war a jubal si mën nañu baax na incha allah ñu topp ci mu ñuy wax tey suba ba mujj mu am comme ñuy yabal comme ñu booleel damam pour mu régler ñu suñu problème waaju baax ñu koy wax Ismaïla Ndoye moom it liggéeyam la yor liggéeyul ci ambassade bi comme ñi liggéey ci ambassade bi kenn mënta déplacé wu moom liggéeyul ci ambassade moom top ci top ci top ci ba keroog buñu démé ci nar yi nar yi nañu say signature ambassade mo ci dess pour mu defal len des xam xamna nak mom comme mom du ambassade dara du nango signé des décharge bi ambassade nango ñu déplacer wu déplacer wu nañ jóge fi Riyad dem damam séti mbayeng suñu des décharge aji mak gi buñu adé ba paré dañu and ak mom dem ndax béyee tawuñu ba ni may wax ak yow hmm? du ya dégg dé ñi ngi ci problème dé Ndiaye nit ñi bu ñuy dem bitim réew nañuy yëglu. ñu dem leer. waaw boo demee ba ci réew ma nga dem sa consul nga yëglu mais fekkee da ngaa dem nekk say mbir ba affaire yu nga bëgg a taxaw ne dem naa fa faaluñ moo la yoo tamit demeewul noonu. day métti fu ñu yëglu waa ji de daa liggéey wàcc yow Ndiaye jóge bureau taal moto moto bi paan mu yóbbu benn mécanicien pour mu réparer ko ko mécanicien fay ko waa ji ko pare mun ne ko damay dem jënd affaire bi ñëwaat ba tey ji mécanicien bi ñëwaatul. yóbbu toog fa di ah, ana moto ba yóbbu na ko kon kay paanul non da koo defal système direct quoi ah. ne ko day jënd benn démarreur la xaw ma mhm. pour ñu defar ko waaj jox ko koo bricolé ba moto mën a tàkk waaw mu taal ko dem mécanicien bi nee na li ma lay wax nii léegi mu ëpp deux semaine bi ma waaj contacté léegi mais ba fi ñuy wax nii nii nii nii mécanicien bi lay ñëwul mais xam naa dafa amagul pièce bi rek waaw loolu xam naa moom lay woon ne rek nañ ñu déglu <laughs> dama amoon problème ak benn mécanicien dimanche le 5 juin bi passé dama joge sama kër doon dem police jëppal ñëw ba ci buntu police bi gaare sama moto dugg ci biir police bi ma génnaat ba ma génnee pour démarrer sama moto far courant bi daw nag courant bi ñëwul après bon ñu ne ma rompoint point liberté 5 am na ay mécanicien benn waaye bu doon romb yor moto mu teg ma tànk ba rond-point liberté cinq ma yegg si benn atelier mécanicien foofu atelier booy pullo fekk fa benn mécanicien bu tudd Alvin François Gomis ñu koy woowee franc man tur boobu laa fekk ñu koy woowee franc mu ñëw xoolal ma xoolal ma moto bi vérifié par la suite mu ne ma sa moto dafa am problème contacteur moo tax sa courant bi du ñëw boo contacté courant bi du ñëw ma ne ko bon la moo ciy pexe mu ne ma ins bi munu comme que tey dimanche la ma am contacteur léegi dama lay génne ñaari fiir defal la ko direct bu ko defee le lendemain su ma amee contacteur dinaa la woo nga ñëw ma changer la sa contacteur mu defal ma ñaari mu génneel ma ñaari fil ma koy directé noonu di ko taalee noonu suma moto pare ma fay ko ma laaj ko main d'œuvre la mu wax ma 3000 ma génnee 3000 fay ko ma ñibbi tranquillement sama kër le lendemain nag déggantewuñu lundi passé mardi mercredi ba jeudi jeudi 16 heures mu woo ma téléphone ne ma amna contacteur ñewul ma changer lako ko ma ne ko damaa nekk sama bureau waccu guma 17 h lay wacc mu ne ma kon bo wàccee 17 h ñewul ma changer le contacteur bi man tam ma def nonu ba ma wàccee 17 h ma dem jóge sama bureau dem ba rond liberté 5 ñew garé fekk wa atelier bi ñep tok patron am ak yenen ouvrier ñep tok mu nuyo la ci franc fekk ko fofu mu tok mu ne ma booy maa ngi ni yo la doon xaar yor nga 5000 yi ma la laajoon pour contacteur bi ne ko waw mu génnee 5000 yi jox ko mu ne ma day dem jëndi contacteur pour ñoo changel ma ko bu mu taalee sama moto ak fiil yooyu mu génne loon def ko direct dem ca laa ko gëj gis ba tey ji may wax ak yéen man ak ouvrier yi nekkoon ci atelier bi ak patron fa la ñu toog ñoom sax fa lañ ma bàyyi ñoom ñëpp ñu taal seen moto dem wëri ko ñoom ñu wër ko ba vingt une heure dix ba vingt une heure gisuñu ko ñoo fekkaat ma ci place ne ma ñun te fépp fu ñu xalaat ne dafay fréquenté dem nañu fa seeti ko mais gisuñu ko noonu